nu nekk ca nan ca war a nekkee ci doxin wan ca war a doxee jëf jën ca war a def ak soññee ban ca war a def ci mbooloo kon noo nga leen di sant bu baax ci di leen gërëm te xam ni loolu rek mooy li am solo gis nañ jëf ji bu baax gis nañ it ni ngeen bennoo bu baax gis nañ fi ngeen teg bokk gi gis nañ fi ngeen teg kilifteef gi gis ngeen fi ngeen teg suñu kàddu gis nañ nit ngeen warmaale suñu jëmm te jëmmi sëñ tubaa ak sëñ Rijaal rek tax kon fu mu ñu ngi leen di ñaanal sa borom leen tawfeex doon leen xéewal kenn doon leen sutura doon leen jàmm yëkkatiku saa bu baax bu bu daj bu daj bu daj kapp fépp leen di sant bu baax di sant nag mboolem daayira Ahlu Rijaal yi bu nekk ci réew mi ak bu nekk bitim réew ñu ngi góor ak jigéen ma nga ndaw ñu ngi sant ñëpp di garab ñëpp ndax xam nañ ne. lëggeel sëñ Tuubaa ñor na leen te loolu rek noonu mooy loolu ñor ndax àdduna bi dafa doy waar li ci nekk bari lool li ci nuru lu lu jëm fenn te jëmul fenn bari lool lay yëngu mel ni dara nga fa te dara néew fa bari lool waaye ndokk loola ba doon ci si yàlla sëñ Tuubaa sàmmee ba musal leen ci yéen man damaa xamut lu xew ba jamono ji léegi lu bari gis nga nit ñi nit ñi bañante xawma lu xew ba jamono ji nit ñi nit ñi yàqalante xaw ma lu xew ba nit ñi nit ñi iñaanante lan la lu xew lu xew lu mu damaa defin xanaa nit lu xol ba wow wow lu xol ba tuuti tuuti lu xol ba tilim tilim tilim tilim xanaa war naa mën a fexe ba ko ci yàlla ak yonante bi sëñ Tuubaa xanaa bu la tër lu nit ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk jot war na man junni laa ilaha illallah muhammadu rasulullah bi su set suba ngoon nit ki loolu bu ko tëë xanaa war na man salaatu ala nabi suba ak ngoon loolu bu ko tëë fukki téeméer bi xanaa fukk war na koo man ci bis bi suba ak ngoon loolu bu ko tëë nag li gën a gaaw te gën bu jant fenkee balaa so xanaa xelam war naa mën a nit si Tuubaa loolu mooy li gën a gaaw te gën a wér kon nun foofa lañ nekk ci aw doxin nan góorgóorlu bu baax te xam ne li jóg di yàq bari ndax bari na ñoo xam ne kat ay njub lañ lan ay nit ñu dooyee di lañ ay kàccoor lañ te saa su ne dañ lay wax ka jëm fenn di ko rattax ay baat ak di ko rattaxi kàddu ngir nga bañ a xemmeem ngir mbiram ngir bëgg ko gàllankoor te teg ko ci bakkan képp ak iñaan dëgg la waa nga dëgg de bakkan ak iñaan rek hmm? nga dëgg de suñ tubaalim fàggul suñ tubaalim daj ngir ñun bari na loolu war nañ koo jombut képp ku nu yaakaar nga sëñ tubaa te bëgg a dund googu dund gu ñaaw hmm. fexeel rek ba sa xel di dem bis sëñ sëñ Tuubaa bu wow day mujj nooy fexeel sa xel di dem ci sëñ Tuubaa bis bu set dëgg la xol bu xol bu xat bi day mujj yaa fexeel sa xel di dem sëñ Tuubaa xol tilim bi day mujj set wecc waaye leneen lu loolu hmm. ay caaxaan ak dëgg ak kàcc rek la suñ tubaab rek kay dëgg lu la nit mën a wax lu la nit mën a wan fu la nit mën a jëme suñ tubaab rek kay dëgg dëgg la suñ tubaab képp kay dëgg yàgg fi tawér yàgg fi tawér sek nan maa si góorgóorlu defaraat suñu tëri bi defaraat suñuy diggante te xam ni adduna si yii nu nekk am na ñu ne fi jiitu woon anañu tey ñu ngi leen di ñaanal ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu ëllëg dañ ñuy ñaanal bu boobaa nan fexe suñu wayu rafet bokk jullit yi bokk taalibe yi nan dollee góorgóorlu nan dollee góorgóorlu bu baax nan dollee góorgóorlu ci sunu jëf jëflante nan dollee góorgóorlu ci sunu doxin nan dollee góorlu ci sunu jaxasoo kenn ku ne fas yéene seetal sa digg ak sa morom yéen a ngi nii toog yéen ngi nii toog daaw nëga ni daaw ba nëga ni ren kenn xam mënta toog waat buur sa këmig sa loxo ne lu ma fi jaamu yàlla nangu na kenn mënta toog waat ne li ma fi tooñ yàlla jéggal na ma kenn mënta toog waat ne sama diggante ak sama nawle tooñ yi ma fi tooñ jéggal nañ ma nit nag bu ëmpalee noonu boppam war naa waajal boppam ci lu bari léegi caaxaan yi bari na de nit ñu bon ñi bari na de nit ñu eñaan ñi bari na de <laughs> nit ñu soxor ñi bari na de mm. nit ñu sew ñi bari na de waaye nit ku tilimee ku mel noonu nag saa su ne mu lay tegal nit ki baax nit nit nit ku baax naa ko weddi nit ku baax gi te dëm ma man ko bon loolu rekk fi ne loolu rekk fi ne weddil ku baax yi ki jëm yaa nga jëm ci yàlla jëm ci Sëñ Tuubaa di te hmm. bu ne ñu sànni la dëgg la akay dëgg dëgg la dëgg la akay dëgg sax waaye muñ te gore te dem rek dem rek dem rek man de ahlu rijaal su ma sañoon hmm. sama jëmm jii dinaa dox doxaale mboolem ku yaakaar sëñ Tuubaa. danaa dox doxaale mboolem ku yaakaar yàlla nañ ko fekkee na nga di déwén. gën ngaa rafetu fekkee. ñëpp wute kenn bañ a manqué. ñëpp wér kenn bañ a wér bi. ñëpp am kenn bañ a ñàkk. sunu xol sedd na sunu xel dal na. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.